de la de la de la politique di contester di défendre Macky Sall pour que ñu porter la à ce à ce à niveau de responsabilité. xam nga xam nga ministre moom boo ko waxee il y a forcément politique man j'ai parlé de mon parcours ba ba ma nekk directrice. je di que loolu dama considérer ni dañ ko war a may bépp. sénégalais. boo demee ba yegg ci bi nga dem war nga mën a àgg fi nga bëgg. man bu ma mm. nekk àggee directrice <laughs> j'avais la latitude soit d'aller faire autre chose soit ma def de la politique. Mm. man maa opté nag pour def de la politique pourquoi je l'ai dit j'ai benn système boo xam dama yaakaar ni lii dañu war a xeex pour mu nekk fi ndax dafay créer stabilité. waaye tamit dafay contribuer ci li nga xam mooy développement ndax développement li koy doxal mooy compétence du leneen du questi choix yaa ma neex donc moi je me suis engagée en politique pour ça et bi may engagé en politique je me suis engagée auprès du président de la République pourquoi parce que tout simplement est-ce que nga est-ce que gëmoon nga ay ay ay ay valeurs politique am est-ce que gëmoon nga ko réellement moom laay wax ni c'est-à-dire pourquoi je me suis engagée en en politique euh, au sein non, du auprès du auprès de Macky moom laa la wax moom laa auprès du président de la République j'avais déjà vu li nga xamante ne réalisé woon na ko depuis bu mu nekkee ci ci boppu réew mi e pour la petite histoire euh, man bokk naa ci ñi nga xamante ne siégé woon nañu à Fatick parce qu'à l'époque j'étais chef de service à Fatick en 2012 bu muy jël réew mi après la dem formation donc gis naa ambition yi nga xamante ni am na ko jépp j'ai quand même pris le temps de de li mu nekk di li mu lan mooy projet am en tant que euh, gestionnaire de politique économique li ma gisoon moom mooy euh, vraiment bëggoon na jëmale Sénégal ci voie boo xamante ne voie de développement. alors gëmoon nga l'acteur de développement qu'il était mais est-ce que gëmoon nga le politique qui qui qui non xam nga balaa ngaa gis le politique da ngeen di am relation relation boobu. bi ñu engagé wu en politique ba quelque temps après nee naa la man li ma ko xam pendant à quatre reprises lu ñuy tase yëpp c'est dans le cadre de de mon travail parce que maa ngi nekkoon la négociatrice en chef du Sénégal pour la zone de libre-échange continentale africaine donc à cette occasion rencontré nañu à plusieurs euh, reprises mais après bi ma amee chance am euh, contact politique ak moom échanger ak moom j'ai vu un homme humble te man nag déjà première qualité bi nga xamante ne moom laay seet ci nit mooy l'humilité waaw parce que nit nag ak loo mëntul doon nit rek nga mën a doon tu ne peux pas être voilà ça a compté mais euh, on n'a pas compris que Macky annoncé ne du nekk candidat rek yow nga quitté Benno Bokk Yaakaar dafa mel ni yow euh, gan nga woon Benno Bokk ku juuxoon nga rek. <laughs> gëmoo idéal bi euh, gëmuloo euh, valeur politique u euh, Benno Bokk Yaakaar parce que Macky Sall quitté ne ne lu nekk candidat terewul Benno Bokk Yaakaar am terewul terewul APR am. mais lan laa la wax nee naa la d'abord lan mu qualité man bi ma bi ma bi ma man ba ma. accompagner ko en dehors de l'aspect du programme c'est son humilité. non d'accord mais mais mais mais gëmuloo trop. Euh, nandaluñ la ci ci ci ay idéo politique am euh, gëmoo APR gëmoo benn Bokk Yaakaar parce que Macky Sall dafa ne daw. man nit laa gëm nit ki laa gëm. kan nga gëm nit ki ma gëmoon moom mooy le président de la République. et il est toujours du moment qu'il n'est pas candidat. Mm. ben. Euh, ñi je peux pas ah, je peux prendre responsabilité vis-à-vis de ces personnes. mais boo gëmee nit ki nit ki demul. xanaa nga xaar ba mu dem ba tàggoo. non mais mais justement loolu foofu la erreur bi nekkee xam nga euh, man je une personne boo xamante damay jël toujours samay responsabilité xam nga man bi may engagé ci moom mënoon naa nekk directrice ba génn te du ma def politique ndax j'étais déjà directrice sans fait la politique mais bi ma jëlee décision kenn forcé wu ma de kenn ñëwul seet si ma ne ma kaay def politique amul kenn koo xamante ne waa APR dafa ñëw naan ma daf may démarché donc c'est parce que dañu nekkoon di waxtaan wàllum politique avec un de mes voisins ñu dem ba àgg ci wàllum politique ma expliquer ko li ma la expliquer le fait que je suis vraiment contente dëkk ci dëkk pays bu mel ni Sénégal nga xam ne dañu dañu ma jox man chance bu ma àgg fii et que man aujourd'hui mon rêve c'est que tous les Sénégalais ñu am même chance bi ko man ma gis un président qui xëy na ci nguuram ci laa am chance ba àgg ci loolu ma gis euh, li euh, vision bi nga xam ne moom la am ma gis valeur humaine yi nga xam ne moom la incarné ma hmm. engage wu à nga engagé wu ak moom d'accord